ba ngay ngoro lu mu wax yan ko na yaway seet ma walaay joxe guro te naa ci yàlla bun ko delloo ma walaay kon bu sëy see na nga muñ li na ngeen ci booloo ma walaay bu ko dóor bul di xaas ci mbooloo walaay bu ko saaga bu ko dóor bul di xaas ci mbooloo walaay di ko yërëm di ko jox ndax da ngeen di booloo bu mu rafale bu mu xiif kon yabeel du am yoon walaay bu seen émission Téegël ngeen ànd ceeg Daaru Alim Store ak seen agence de communication Cocorico bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina walana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa asna xadibihi wa ummatihi wa sallim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy teewlu ci seen chaîne Almanara TV di ñu topp ci seen jotaayub téegal ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dalal ci jotaay bi euh, di xamle ne tey ñi ngi fas yéene nafar benn tomb boo xam ne ci biir li soxal jotaay bi rek muy lu luy jàngale lu jëm ci kër ci ci loola lay aju muy ngoro ngoro mi nga xam ne mën nañ ne tàmbali woon nañ ko ci jotaay bi weesu woon ci bi ñuy xamle lan mooy labat ndax mën nañ labat mooy ngoro rek wala buñ leen doon teqale dañ naan labat mooy xamle gi ni ko borom xam di waxee mooy xamle gi yittewoo gi nga yittewoo nit ki ngir ànd ak moom ci biir néegu sëy moo xam góor gi moo ko def wala soxna si wala ku ci ne ay kilifaam loolu mooy mooy labat bu ko defee nag feeñal gi bu xasee ba am ba ba fas gi di di am luñ fa defaat ñu tuddee ko ngoro loolu mënees na leen a tey nag ñu fas yéene jàngale kon lu jëm ci ngoro googu mooy ginnaaw bi feeñal gi amee ay mbir yoo xam ne bëgg nañ ci nit ki mu def ko li ci jiitu rek ci mbir yooyu mooy xool dañoo bëgg lislaam dafa bëgg ci ki nga xam ne day labat kami labat mu xool ko loolu nag ay xadis yu baree bari yu koy firndeel ñëw na yéen bi sallallahu alayhi wax ko am na ci foo xam ne dafa wax ne bu kenn ci yéen di labat jigéen ngir def ko ngir denc ko soxna bu mënee xool loo xam ne dana tax xolam bëgg ko ba tax mu loola poussé ko ci mu denc ko soxna bu mënee am loola cib xool na ko def am na it keneen ku ko doon wax ne ko man dama doon labat yonent bi sallallahu ne ko ndax xool nga ko mu ne ko déedéet mu ne ko demal xooli ko ndax ñooñu ngay labat kat seeni bët li ci bari léeg-léeg day doon bët yu tuuti te mu mel ne arab yi wala sax ñu dut arab yi léeg-léeg bët yu tuuti day doon ayib ci jigéen mu mel ne loolu lépp li mu ci jublu rek mooy xool ko ba xam da nga gis lu lay poussé ci ci ci denc ci denc ko soxna muy ay xadis yu baree baree bari te ñu mën a jàngatee loo xam ne mën nañ ne mën naa am mën naa doon njariñ ci xool boobu muy nit ki bu fekkee moo xoolal boppam ba gis loola dana tax ëllëg du mën a am awlay ci keneen mu wuuteeg bu fekkonte ne dañ koo tànnal te gisut su boobaa ëllëg mën naa wax ne ko yow kat boobu dama laa gisutoon ba tax ma ma defoon ma defoon lii waaw kon xool gi daal nañ xam ne lu luñ lislaam yoonal la te boroom xam-xam yi sax dañuy wax ne ci diir boobu mooy diiru ngoro gi ak labat gi foofu euh, kersa li muy am am solo ci lislaam liñ koy xemmeem loo lépp foofu noona dañ naan dañ fay ŋàññi léeg-léeg kersa kersa goo xam ne day tax la nga war a xool doo ko xool euh, danañ sib wala boog danañ ŋàññi kersa ci ñetti barab yoo xam ne boroom xam-xam danañ ko junj bokk na ci barabu labat boobu bokk na ci ci jàngale bokk na ci it ci noddu إن الحياء حسن وزم في تعليم علم وأذان فاقتفي ونذر الوجه من المخطوبة إياaka wal xayaa fi salaasati bu ko defee nag xool googu li nga xam ne moo moom la ci borom xam yi di tënk yi bokk na ci mooy nit ki jamono yi muy xool na na jigéen ji yëg ne moom mi ngi koy xool ngir ngir ne da ko bëgg labat loolu bu dee ci mazhab Malik dañ ciy bëgg loolu ci ngiru al malik dañ ciy bëgg loolu ndax dañ naan bu fekkoonte ne euh, jigéen gi dañ góor gi dañ koo may rek waxtu wu ne mu xool jigéen ci heure bu mu ko neexee jigéen gi yëg na ko wala yëgu ko su boobaa léeg-léeg day mën a ubbi ab buntub dañuy mën a fekk nit muy xool jigéen nam ko neexee ñu ne ko waa looy looy def nii mu ne damay damay waaw moo tax kon dañuy bëgg moom balaa balaa balaa sañ xool na jigéen gi yëg ne moom mi ngi koy xool ngir ngir ngir ngir ngir ngoro googu noonu na ko xamal jigéen ga bu ko defee nag euh, xool googu xam nañ ne lislaam moom lu ci ne da koy wutal limite du ne rek dañ ne ko xoolal moom mu sañ xool lépp waaye dafa am limite loolu nag li borom xam yi ëpp wax mooy loxo yi ak euh, xar kanam gi am na sax ñu ñu ne ñoo xam ne dañ koy tënk ci naan li nga xam ne day feeñ ci li gën a not li nga xam ne lu baree bari mooy feeñ ci nit ki lu mel tànk yeeg yeel yi ak ak yi demee noonu teewul nak amna ñu ëppal ba ba wess lolu waye wax joju doonut wax ju dëgër ci eh, ci ci ci li borom xam-xam yi wax su ko defé xol googu ni ko gi ni ko gi sañee def jigen gi it non la ko sañee def nga xam eh, momit ci jigen jigen gi gor gi mi gi mi gi mi bëgg momit dañuy bëgg momitam mu xol ko niñ ko bëggee ci ci ci ci ci ci ci gor gi nga xam eh, kon ñom ñaar ñëpp ku ci ne sañ na ko def moo xam da koy defal boppam wala it day wut ku ko defal loolu it ba tey dagan na waaye ba tey rek ci limite yi nga xam ne moom moom lañ waxoon it borom xam ne day leeral ne jigéen ji nga xam ne sañ nga koo xooli mooy ki nga xam ne bi ngay dem am nga yaakaar ci ne boo demee dana la nangul ki nga xam ne am nga yaakaar ci ne boo demee dana la nangul waaye koo xam ne yow wóor na la ne boo fa demee du doo nangu du nangu nga xam ne yaakaaroo ci moom ak nangu kooku moom dañ naan la sax sañoo koo xool foofu it ba tey ci jamono jii li xew nga xam ne lu mel ne photo yi ñu bari danañu koy jëfandikoo xëy na borom xam-xam yu njëkk ya waxuñu ci woon waaye ñu mujj ñi am na ñu bari ñuy junj de bu dee foto yu bees yi nii bu fekkente ne xool gi mënta am nii physiquement dana daga nit ki def ko ci loo xam ne foto la luy wane nit ki waaye nag su boobaa ci limite yi ñu waxoon loola lay doon beneen ba it na doon loo xam ne triche bu mu ci bu mu ci am mooy bu mu doon loo xam ne day melal nit ki ci anam goo xam ne bokkut ak nam mel dëgg-dëgg nga xam ne mën na koo xemmeem te te lam xemmeem ci moom bokkut la ne ca moom dëgg-dëgg loolu it bokk na ci liñ ciy bàyyi loo xel kon ginnaaw bu bu xool gi jàllee bokk na ci mbir yi nga xam ne mat na bàyyi xel ci biir ngoro mooy cadeau yi nga xam ne dañ koy joxante muy góor gi wala jigéen gi ku ci ne di ko jox moroom loolu lu ñu yoonal la ci ci lislaam ndax xam ngeen ne maye moom lislaam da ko fonk ci diggante ay jullit yonent bi salaa salaam dafa waxoon ne tahaadaw taxaabu mooy na ngeen di joxante ay kado di mayante loolu bu ngeen ko dee def dana tax ak bëggante dox seen diggante ba tax ñi nga xam ne dañuy dox jëm ci sëy lu baree bari loolu danañ koy def ci seen diggante te loola nag doonu doonut lu lislaam ngàññi waaye lu dëgër la loo xam ne lu ñu sopp la xëy na li ci mat a leeral rek mooy jamono ji nga xam ne ngoro gi dana am góor gi di yëkkati ay maye di ko jox jigéen gi su boba bu na fa dañ nan jigen gi bu fekente ne nopi wut ngir sey ak gor gi ni su boba gor gi bu ko joxe ay ay ay ay ay ay cadeau ngir sey bi ngir ngir relation bi sekk su boba deugnu ci jigen gi mu di ko nangu dëgënut mu di ko nangu mooy li nga xamne rek ñu ñu bari dañ koy def te defena ñukoy wowe koy nga xamne da ngay jël alali nit ki te xam ne ngir ngeen dox jëm ci sëy moo tax mu la koy jox nga di ko nangu loola loola borom xam-xam yi danañuy wane ne loola dëgganul ci jigéen gi bu fekkee góor gi looloo ko tax di def loola sax dana tax borom xam-xam yi dañ naan bu fekkente ne ci anam googu ngoro gi tas na góor gi lam ko mayoon lépp bu ko neexee sañ na ko nanguwaat sañ na ko nanguwaat donte am na am na ñu teqale am na ñoo xam ne dañ naan te moy li nga xamne moy ngir al imam malik moy dana ko saña nangu bu fekente ne la la yaq yàq ngoro ga ci ci ci gi la bayiko fekke jigen gi mo dem ba genn ci kon lam ko mayen dana ko saña nangu wat waaye fekke fekkee gor gi mo dem ba gennat ci nak kon lam ko mayen du ko saña nangu wat am nak ñu ne dana ko saña nangu ak ak lu meuna xew bokku na ci li mata li mata xam ci bir ngoro moy jamono ji nga xamne ngoro gi dana am dañuy bëgg ci ñaar ñi ko sekk ku ci ne li nek ci moom ci ay ayib mu wax ko morom ji man li nekk ci moom ci ay sikk ak sikk ju mën a doon mu leeral ko morom ji sikki ji nag dañ naan mooy lépp loo xam ne rek dana mën naa tax nit ki génn génn ci sëy bi maanaam génn ci morom ji lépp loo xam ne nit ki mën naa mën naa tax mu génn ci ngoro gi rek loola dëgënut ci nit ki mu di mu di ko ak lu mën doon nag moo xam tawat la tawat yaram wala ay jikko wala sax at yu néew wala at yu bari lu mu ci mën a doon danañ bëgg nit ki xamal ko ki nga xam ne la seqal loolu noonu loolu sax tax na euh, borom xam-xam yi dañ naan am na ci yenn ayib yoo xam ne bu fekkee nit ki bi muy ngoro waxu ko woon waxu ko woon nit ki moo xam góor gi walla jigéen gi la su boobaa ginnaaw bu bu sëy bi amee ba noppi bu ko ca xamee bu ko neexee même bu dee jigéen gi la nga xam ne moom amutoon àq tas sëy bi même bu dee jigéen gi dana sañ a dem ci yoon yoon yoon yoon tas sëy bi waaye am na ci yenn ayib yoo xam ne yenn sikk yoo xam ne buñ amee ci góor gi te jigéen gi xamu ko woon yoon dana ko may mu tas say bi kon loolu lépp di firndeel ne bëgguñ foofa kenn di nëbbu moroom ji ay ay ay ay ayibi moroom ay ay ay ayibam te loolu mën nañu mën nañoo wax ne am na ay ay njariñ yu ci nekk muy ñaari nit ki bu fekkee xam na nit ki bu baax xam ko xam ay sikkam xam nga mu xam ay sikkam bu ko ko xasee nangul ba ba ba ba ba ba ba ba jéggal ko loola loola dana tax bu ëllëgee bu gisee mu def dara te sikk yooyee waral ko mu mën ko koo jéggal mu wuteeg bu fekkente ne nag yëf yi moom xamu ko woon mu dikk ko kaw loola bu xa bu fekkee ginnaaw sëy bi la la ayib yi li ma bëgg a wax foofu mooy ayib bi bu fekkente ne ci ginnaaw bi sëy bi fasoo ba noppi ci la feesee su boobaa lor ja mën naa bari mooy mbir waa ji mën naa mën naa jàpp ne nit ki da ko war mu wuteeg bu fekkoon te ne xamoon na ko bu njëkk ba ba jéggal ko ko kon loolu lépp rek di di di firndeel bëgg guñ bëgg euh, nit ki leeral ayib yi nekk ci moom moo xam góor gi wala jigéen gi loolu sax ba tey danañ dana danañu yóbbu ci ñu leeral foofu euh, dana dana lislaam dana may moo xam góor gi wala jigéen gi kum ci mën a doon mu dem laaj laaj ñi xam ne ñi nga xam ne xam nañ jigéen gi wala góor gi dem laaj ñi nga xam ne xam nañ góor gi laaj leen moom yan mooy ay jikkoom yan yan la baax le yan la baax le wut su boobaay it kañuy laaj lislaam dana ko may moom it mu leeral mu leeral la nga xam ne moom la xam ci moom ci ay sikk te su boobaa bokk na ci yi nga xam ne it bëgg nañ ko ci kiy ngoro mooy mu nëbbu ngoro gi bokk na ci yooyu mu nëbbu ngoro gi ba ba sëy bi di façon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu jàngal loolu mais ngeen di ngoro na ngeen ko nëbbu waaye bu sëy xasee fasu nag na ngeen ko fésal am beneen xadis boo xam ne sax da caa wax lu gën a yaatu loolu ne lépp loo xam ne aajo la jooj da ngeen cee dugg dangeen ngeen fexe ba la ngeen di dimbanikoo ci sottal ko doon nëbb ko istainu ala injaaxil xawaaiji bil kitmaan moo tax boroom xam-xam yi di jàngale ne labat bu ko nit ki di def dañoo bëgg mu nëbb ko wakat mu am riha ila taaqudi te buñ xoolee nëbb googu sax danañ gis ne am na ay njariñ mën naa ami njariñ benn bi mooy mën naa doon njariñ ci góor gi ci jigéen gi mën naa doon njariñ ci jigéen gi te mooy xam ngeen ne jigéen bu fekkente ne yàlla dafa dogal nit labat ko mu siiw te te ngoro ga sottiwut keneen defaat ko keneen defaat ko ba mu doon ab lim loola mën naa tax nit ñi di tàmb tàmbali di laaj waa kii mbaa du dafa am lu nekk ci moom ba tax ku ko ngoro rek ngoro gi tas te loolu léeg-léeg mu am ba tax léegi ñu bëgg kon di nëbb ngoro gi mu bañ a siiw loola bañ cee am beneen bi it mooy xam ngeen ne bu yàlla dogalee mu siiw lu bare bari mën na cee mën na cee am mooy eh, yenn yàqkat yi mën nañ cee mën nañ cee profité eh, saytaane it xam ngeen ni mu bëree ay ay pexe ba tax ñu bëgg rek kon nit ki nëbb ko noonu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee am na ñu doon laaj diir bi nga xam ne moom lañ maye nit ki ngoro loolu nag bu dee ci lislaam amut ab limite mooy bëgguñ mu gàtt ba ëpp gàttaay boo xam ne dana tax nit ki li li war dalal xelam du ko ci am waaye bëgguñ tamit mu gudd ba ëpp ndax bu guddee ba ëpp moom lor ya sax fa lay gën a bare kon bëgguñ kon l'islam wutalu ko ab ab waaye tënk bi rek mooy dañ naan na doon ab diir boo xam li gën bari nit ki dana dana ci amee loo xam dana mën dalal xelam loolu nak bu xasee ba am rek jëratut muy gudd te buñ buñ buñ buñ jàngatee danañ gis ne euh, bañ a guddal gi moo gën ci anam yu bari bi ci jiitu rek mooy loo xam dañ la ko nëbbuloo xam ngeen ne loolu bëgguñ mu mu gudd ndax ñaari mbir moom bu bu yàggee rek ak siiw dana ca yomb beneen bi it mooy xam ngeen ne seytaane dafa bari pexe góor ak jigéen fu ñu rek euh, lu ci bari da cay profité ba tax loola mën waral mu jur euh, lu lu lu yellut am ci seen diggante loo xamante ni dëgganut juddoo ci seen diggante ba tax euh, loolu kon ñu mën cee jàngatee ne guddal gi gënut benen bi mooy bu fekkee dañ ko bëgg guddal ngir naan dañuy bëgg ak mbëggeel am ci te loolu xëy na moo gën a bari sax ci jamono ji li ñuy leeral foofu mooy borom xam-xam yi ñu bari ci ñoom dañ naan ak mbëggeel li ñuy wax ak mbëggeel dëgg moom ñaare du am njëkk sëy bi di am loolu nga ñuy wax cofeel alxaan tudd ko dañ naan lu bare bari ginnaaw ginnaaw sëy bi lay lay lay am ni ko aaya bi waxee li taskunu bay wa ko baynakum mawaddatan wa rahma foofu dañ naan lii jiitu mooy sëy bi ak ak dëkk gi su yooye amee nag ci la mawadda gi muy cofeel gi ak ak ak ak raxma gi mu yërmaande ci di door a ñëw kon ñuy xam ne rek ne kon nit ki bu xasee ba gis lu dalal xelam ci ci moom rek muy ci kum ci mën a doon bëggatuñ léegi yeexe gi amee ci liñ koy tëje rek mooy leeral ne ki nga xam ne day labat kooka nag lu mën a xew moom ab jàmbur la ba tey ab jàmbur la ba tey mooy lislaam mayu ko lu weesu lu li may ab jàmbur dafa am ay limites yu yum ko yum ko yum ko yum ko yum ko yemale waaye euh, li ñu bari di jàpp nga xam ne dañuy jàpp ne kii kii labat bu dee góor gi jigéen gi dafa mel ne soxna ci moom bu dee jigéen gi góor gi dafa mel ne borom kër ci moom ñu xam le ne loola kon bokkut ak li nga xam ne mooy mooy ni ko lislaam gisee muy kenn ku ci nekk ci ba léegi ab jàmbur la ci moom te loolu sax moo waral ba léegi jigéen gi ñu di ko may muy am sañ-sañu bu bëggee génn ci labat gi mu génn ci te xam ngeen ab sëy bu xasee ba fasu moom jigéen amatu fa kàddu waaye góor gi moom moom kàddu gi léegi waaye nag euh, bu dee labat moom muy ngoro jàppee wuñ ko ab ab sëy waaye mbir mu ñuy dox jëm ci mbir mu ñuy yóbbee ci sëy lañ ko jàppee ba tax foofu jigéen gi sax ñu may ko fi kàddu mu sañ mu sañ caa génn waaye nag loolu lépp dañuy bëgg it buy am bu demee bay am mu amee ci ak rafetal te bañ a am ci cadre boo xam ne fecc kóllëre lay doon wala ci cadre boo xam ne sax wor lay doon léeg-léeg te léeg-léeg lu mel noonu am euh, li ci des rek mooy kilifa yit xam ne yii yëpp buñ fi buñ fi jaaree nag ba nga xamante ni li war a am am na te te it mbir mi ñu tàmbalee ko ca kilifa ya kilifa gi moom war naa mat kilifa it moom itam war naa mat kilifa mooy war naa xamit li nga xam ne moom la war a seet ci ki muy wutal ki mu yilif loolu nag yonent bi salaa sallam jàngal nañu ko ci ne lam ca war a seet weesu diine ak jikko ju rafet wax ne ku mel noonu bu leen dikkalee na ngeen ko may wax ko ñetti yoon ne bu ngeen ko defut nag bu ngeen ko defut euh, fitna ju rëy mën juddu ak yàq goo xamante ni gu yaatu lay doon loolu moom moom la jàngale kon yooyu yëpp it kilifa gi war ko war ko bàyyi waale xel amna sax fenn fo xamne borom xam ne danañ koy cité muy bu fekke dañu dem ba nga xamne kilifa gi dafa baña maye ki muy yilif ngir djublu ko lor su boba yon sax da koy forcer mu maye ko bu bañe lolo yon yon mujj maye ki nga xamne mom moom la yilif kon mu melne waxtu wi xadna ñi ñu ngi jégalu ñëpp alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sen émission tegal ngeen andon ceeg daru Alim Store ak sen agence de communication Cocorico ba ngay ngoro lu mu wax yan ko na yaway seet ma walaay joxe guro naa ci yàlla bun ko delloo ma walaay kon bu sëy see na nga muñ li na ngeen ci booloo ma walaay bu ko dóor bul di xaas ci mbooloo walaay bu ko saaga bu ko dóor bul di xaas ci mbooloo walaay di ko yërëm di ko jox ndax da ngeen di booloo walaay bu mu rafale bu mu xiif kon yabeel du am yoon walaay bu lu guddee tëri yow soo tëri awal yoon